asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi nuyooti nañu leen ah kenn ku ci nekk fekk nañ ko fi fu mu toog ne ko jàpp loxo naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, tey nag ñoo ngi fan ñoo ngi fii euh, ci Mbacke Bawol euh, kenn ku nekk xam na ne Daaru Caam borom dina ma neex moo woote doomi Leuz TV jooju nga xamante ni nee naa ko kenn du moom doom yaay béy di moo woote tey fii nga xamante ni moo di théâtre Verdi bu Mbacke gis ngeen daanaan yëpp ñëw nañu artistes yëpp ñëw nañu xam naa ne comme saa su nekk ah, niñ koy baaxoo di defee rek dinañ dugg ci kër yi dugg ci dugg ci saal yi loxo waxati yi nga xamante ne ñoo fi ñëw teewal bés bi ah kenn ngi nii sama wet kenn ngi Omo naa leen def yaa ngi jonga ma bee. neel bi laay. Oumou lan ngay wax sa fan si. waaw maa ngi nii sama fan si yëpp di leen gërëm di leen sant ah, di wax rek ne maa ngi leen di gën a bëgg ñoom ñu may gën a bëgg. Ah, di ñaan nag ah, ñaa ngi maa ngi waat ci leneen lu bees loo xam ne maa ngi ñëwaat bu kenn xaddi ñoo ngi ñëwaat ci leneen lu bees incha allah. yow ci Lamdi Fall bi nga bokk. waaw ci Lamdi Fall laa bokk daara tamit nekk sama xarit ma ñëw dugg si muy sama doomu ndey sama lépp moo tax ma ñëw bokk ci waaw. waaw mu yow sénégalais dañ lay laaj rek sa faru mbër boobu noo leen mujjee. waaw loolu a leneen détail la nañu wax leneen. waaye takk na a dégg naa. non loolu du débat. dégg naa am ngeen doom. loolu du débat. <laughs> béy di dégg nga nanguwul tontu ci loolu. waaw waaw man a xam nga yàlla dogo mënuma leen. waaw léegi kon lan nga may may. waaw lu ma lay may moom ah, xam nga ne man mënuma loolu li ma lay may ci kanam ci kaw seen bi waaw acca loolu tam waaw maa ngi tàggu ñëpp di nuyu ñëpp di xamal ne Lamdy bi yemul fii ku bëgg rek mun nga ñëw assister si Lamdy Fall bi ñoo ngi fii ah, ay ñoom Adama Jaraa ngi fii ñoom ñun ñëpp daal ñu ngi fi ku bëgg a bokk rek mun ngaa ñëw ñoo ñu ngi fi waaw loolu neex loolu neexee na nun yaa ngi jonga bee yaa ma gën a jonga bee ay ca bay di ah, dégg nga loolu nga xamante ni moom la ummi wax moom itamit tubarkalla naa leen doomu gaynde kenn du ko ñaanal da nga koy ñaanal gudd fan lu ñu def nag lu mooy dugg ci biir la ku zappe rataloo dul dabe affaire yi di ko neexal ba mu neex fii ci Mbàkke tey ah, génn na daanaan yaa ngi nii toog wax dëgg yàlla comédien yi comédien ñëw nañu Leuz TV ah, départ jógee fii ba Dakar lépp ndax Daaru Thiam ah, nee naa leen koo xamul nam la def ah, nan koo xamul noo koy def nam la defa tax ah, ba tax na lii mënul war ñàkk Leuz TV bu teewee ci bésu Daaru Thiam bi du ma bett ndax itamit kenn ku nekk xam na digganteem ak Leuz ak digganteem ak Beydi Aïcha du ñu def lu mooy dem seet artiste yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Aïcha seetaan ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw waa Adja li nga sañse lan la Adja yaa ngi jongoma bee après <laughs> waa Adja maa ngi lay fay. da nga déparé euh, Dakar waaw nan la ñuy def neneen xale bi dok xale bi jar na ko xale bi dafa baax tubaarkàlla te ki la bëgg rek tubaarkàlla mënoo koo fay law la ca te xale bi dafa am yar bëgguñu lool nag ñu ay nawleem te sequñu dara lu ñaaw lu dul lu rafet loolu moo tax ñoom ñu def déplacement ak dérangement comment faire. fooko da ah, takk rek weesu na foofu. mën naa laa ñaan benn appel. loo ma lay ñaan. sama wërsëg balaa ngay yéeg. Adja ñu ngi lay jaajëfal. waaw kontaan naa ak daara tey dara du yomb ba rek. waaw loo may may. may ma benn léeb rek. loo bëgg leneen xam nga yow da bëgg di jàng ay taasu pour bëgg bu ma ñëwatee ma bàyyi la sa wërsëg. jëlal sa yëf ma jël sama yëf adduna amulu solo daaroo ñu saf ñu saf ko e mbir mi safan tela jëlal sa ma jël sama yëf amul solo dara ma saf man na xama naka mbir mi safan <laughs> tela dagal sa baaraam foofa ah. te ci kanam fee dana garaaw torop incha allah ñu dem te ñëw kon mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi fii jàkkaarloo ki nga wax Alioune Mbaye yow lan la li nga verre noir nii lan <laughs> ku nekk ak ni ngay solo mu rafet baa mu ñaaw na nga ko moom rek ma ni àdduna amul solo ku nekk ak ni ngay solo mu rafet baa mu ñaaw nanga ko moom rek ayca <laughs> nuyu nañ la Alioune Mbaye gis la fi nga xamante ni moo di Mbàkke Bawal ci bésu Daaru cam bi xam naa ne sa digganteeg Daaru sax kenn du la laaj lan moo nekk seen diggante ndax àddina yëpp xam nañ ko dañ lañ naan tey lan ngay wax Daaru Càm ci bésam bi waa di sant yàlla bu baax di gërëm laa mi faada parce que ni ma koy faral di waxee askan boo ci teralee kenn ñëpp nga teral kon laa mi faada bu nu jógee am initiative bu mel nii defal ko koo xamante ni ci ñun la bokk buñ ko defee nenoon mu metti ni kon buñ ko defee nii mu kontaan public bi yëpp toog ndeysaan ay mbokkam ak i xaritam ak ñëpp Mbàkke gépp jug dañ ciy kontaan bu baax xam ni tey ñoom Mbàkke honoré ne bépp artiste bépp comédien ak bépp comédien kontaan nan trop parce que Daaro macha allah jigéen la mais ku baax la ku mën a yaatal loo ko wax mu ne xaaral ma woo diw kon nit fii ku fi daanu soxla la bu max kon lii mu am jomm ko ndax macha allah xorom bu rafet non jooykat bi sax dama ni na ndax li ñuy jooyantee jooy du ko yàq. ayca léegi lan ngay wax waa TV ñun lépp lañ bëgg nag. Leuz TV ñoom wax dëgg yàlla non béy di ko mere béy di béy di bëgguma ko. ayca béy di béy di nee naa nee jooy tey duma jooy. waaw ma jooy. waaye kañ ngay jooy. waaw waaw waaw noo ko naan de yow da ngaa dégg. farima yi bëgg nañ la bu baax a baax euh, di la wax na yow it tubaarkàlla macha allah sa digganteeg Daaru Caam yaakaar naa ne kenn du la ko laaj ndax it àdduna yëpp xam nañ leen dañ naan la tey lan nga ñuy wax ci Daaru ak lan nga koy wax ci bésam bi. waaw boo ma laajee ci Daaro dinaa sawar a wax Daaro sama sœur la ñu bokkul di liggéey man ak moom lës boole ñu lii lépp lës da moo ñu boole ñu xamante ci biir loolu ñu liggéey liggéey bu set pendant des années ñu bokkul liggéey. boo bu xewlee damay ñëw ñëw naa nga en tant que frère ñëw naa nga en tant que artiste comédien waaw ça me fait nag bi ma ñëwee gis Daaro xale yi fi Mbàkke ni ñu ko bëggee waaw franchement damay damay kontaan mais lépp rek lës de quoi lës de quoi parce que boo lekkee ci ceeb ba mën a lépp moom la quoi parce que boo lekkee ci ceeb ba suur ba naan ndox ba géex war nga wax jërëjëf ci demoon marché ba waa li lépp lës de quoi waaw te lëg du lekk aram xaw ma lëg bu lekk aram la ko gërëmee cooy waaw waaw je suis très ému quoi mun munuma munuma wax ci kii quoi ci ay micro. non benn gel la woon bu mel ni yow Alioune Mbaye nopp ko man nangu ko ci moom wasalaam <laughs> xanaa ma amul lépp. xanaa du yaa lépp lépp jeex waa mais waa mais mi li nga sañ seen tamit lan la tamit. Ah, dama ko woyee far rek. jonga ma bee. sama doom laay jàppale sama jabar daaro ndax ki ko takk sama xeet la ñoo bokk mel na maam. monsieur Samb ñoo bokk sira Kumba Lawbe buubu Kumba Lawbe Kumba Lawbe lay tijjee yaa lay ngalanka amaan moo la su ko paate ñoo bokk menn maam maag jëkkëram li ma bokk ak mu ma sax ne ñoo bokk ndey ak baay te man juddu Mbàkke laa fii laa juddoo fii laa màgge fii laa yaroo kon su ma demee ba bokk daaro théâtre bi mu dem ba waa Mbàkke taxaw di ko sargal waa mi faada euh, daaro kon dama si war a kontaan muy xale bu baax xale bu ñàkk ñaan ñun ñëpp mu jël nu def nu nuy benn fu war a amee lu baax su ko daara xamee daf nuy woone nu ñëw leen. ñu ngi lay yaay booy waaye li nga zone tey lan la tamit. non dama ko woye fa rek xam nga man mag la mag buur la. benn lépp. lépp bu laa leen di may de. dafa am pël boo xam ne daan ñëw di jaay soow pël bi su ñëwee di jaay soow su tegee soow mi rek ne tiit saa yu ñëwee def ko ba benn bés mu daal di daal di ne xaaral ma dem ci fara tëgg mu suudeel ma ko ñëw su mi tubay ji fara tëgg suude mu ne tiit fara suude waat mu ne tiit daal di ne ko i kam fara bàyyi ko defe naa kus bi dafa raakaat tubaarkàlla macha allah kooku ngeen di gis moo di yii Fodé Fodé temps yi da nga am yaram temps yi da nga taay jógal jaayu ba xool jógal jaayu <laughs> ayca Fodé ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax. ayca yow moom yaakaar naa ne kenn du la laaj sa digganteeg daaru dañ naan la nan nga gisee bis bi ak lan nga ñuy wax ci moom. waa bis bi dama cee kontaan parce que lii euh, euh, c'est du première lu bees la ci ci Sénégal nekk jeune talent boo xam ne artiste comédien la boo xam ne kenn dootu ko laajte. mu nekk nag loo xam ne initiative boo xam ne euh, MIFA bi organisé ko def social man social bi rek moomu ci gën a marqué bi ñu jaaree Mbàkke def caravane gis naa lu ma yéem man démb xam ne artiste comédien war na gën a gëm boppam xam ne ñu lu ñu mënta am ci réew mi amul ñu gëm suñu bopp xam ne liggéey bi ñu yor ni liggéey bu noble la dama ci kontaan xam ne programme bi macha allah macha allah waaw li commencement rek gisaguñu dara waaw. kontaan naa ci yéen di nuyu waa Leuz TV yëpp sama sama waa kër waa kër la.